Issa Laye Samb ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay say lu bari sëriñ bi. yow responsable jeune bu taxaw Sénégal nga ci département bu Ndakaaru nga nekkit candidat mairie bu Yoff ci élection locale yi ñu dëgmal élection locale yooyu léegi kon leer na xam nañu lu ñuy sàkku ci képp ku yootu baatu askan wi ndax euh, war nga joxe lu toll euh, ci fukk ak juróomi million ci élection bu nekk maanaam euh, muy communal wala départemental nan nga jàngatee loolu koppar googee ñuy laaj ndax am xaaran nga lu nu mel. waaw xam nga démocratie moom. Mhm. saa su nekk liñ koy fàttalee nit ñi. mooy kenn ku nekk ci askan wi. am nga sañ-sañu yëkkati sa loxo ne bëgg nga pour taxaw defaral sa gox. donc tey caution bi ñu teg. day gën a gàllankoor loolu ñuy oowee démocratie ci suñu réew da kay gën a salfaañe. Mhm. donc loolu it du may. ndaw ñi nga xamante ne ñu ngi ci ay gox-goxaan. am fa taxawaay am fa yéene. ñu mën a bokk ci mbir mi ndax koppar yu takku lañu ñu laaj loolu nekkul ci. Euh, tolluwaayu ndaw ñëpp. donc loolu lu ñuy ñaawlu la lu ñuy mitit la ci li nga xamante ne moom la nguur gi décidé. lan la ci opposition bi doon sàkku rawatina taxawu Sénégal ci caution boobu. taxaw Sénégal moom saa su nekk li opposition bi euh, wax lay ànd te ñun suñu taxawaay ak suñu mbëbët jëp mooy gën a yombalal askan wi gën a yombalal wéy politique yi. ñu mën a bokk ci jongante yi pour mën a exercer li nga xamante ne moom la leen démocratie may démocratie may. waaye euh, ñu doon euh, xam la ni euh, majorité bi ci boppam ñoom ñaar fukki million la ñu doon sàkku opposition bi doon sàkku fukki million mujj gi fukk ak juróomi est-ce que nekkul xaajale leen rek. waaw xam nga dafa arbitre rek. mais majorité bi moom ñëpp xam nañu ne seen bëgg-bëgg. mooy noot askan bi. ñoom rek ne fi ànd ak seen kattan ak ndax ñëpp xam nañ ne moyen l'état la ñu yor. Mhm. mais tey ministre bi ah waaw séddale <laughs> na ci dëgg bi ndax opposition bi fukk yi ñu waxoon jàpp nañ ne yemm may na te war na mën a nekk loo xamante ne ñëpp dinañ si gis seen bopp daal. Mhm. lu jëm ci euh, caution seetlu bi mooy dafay bëri lool lu muy jur coow naka noonu sax date euh, élection yi ci wàllu euh, boppam lu waral loolu lu waral déggoo mosuta am ci yëf yi. waa xam nga président Macky Sall ak ay ñoñam ak ñu bëri rek lañ ci masalal bi ñu nekk ci bopp réew mi ba tey. calendrier euh, électoral bi pour ñu respecter ko taxawal ko lu jafe lay doon ko tey euh, dialogue national bi nga xamante ne jàpp nañu ne échec la mënoon na régler jafe-jafe yooyu yëpp ndax ñëpp a ngi fàttaliku code consensuel électoral bu 92 donc bu doon président Macky Sall bëgg na ak leer ak njub daana toog yan la jafe-jafe ñu régler ko ci dialogue politique bi nga xam ne dootul nekkati même source de difficulté pour mooy pënd yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew ñu bëggoon nag bi yoon laaj sa xalaat naka la ñu mën a def ba kon euh, coowal caution bañati am problème ci Sénégal ndaxam dañ ko war a institutionnaliser. lan mooy pexe waaye moom mën nañ ko def ci code électoral bi. ñëpp mànkoo ci ne élection bu nekk nii lañ ci war a doxee nii leen ci war a taxawee mais nag caution moom dañ koy fixé ci code électoral ci li nga xamante ne ay fan la yu ñu joxe. balaa élection yi di am mais nag fii moom démocratie lépp lu ñuy waxtaane la buñ ci dégloowee rek application bi day gën a yomb ñëpp gën si man a gis seen bopp. Mhm. mais nag ak Macky Sall loolu taxu ko jóg ñëpp jàpp nañ ne jaay doole ak waññaar loxo moom lay politique te loolu duñ ko war ngir waa waajal local yooye sax opposition bi di waajal seen coalition coalition bu yaa ndax ñu ngi ciy lim kii di taxaw Sénégal ak Khalifa Sall ñii di waa Pastef ak Ousmane Sonko pur naka noone ak PDS fan ngeen tollu ci waxtaan yi maanaam tractation yi. waa coalition boobu moom daanaka euh, jàpp nañu ne li ko defee mu juddu am ndëgër laay bareetul. Hmm. ndax kilifa yi waxtaane nañ ko te waxtaan yu yanu maanaa yu topp yoon la. ndax tey boo gisee politique gu Sénégal l'opposition bi xawoon na am ay rëcc-rëcc ci taxawaayam ci euh, at yu ñu weesu te fi ñu jëm dafa soxla mbooloo mu dëgër soxla ña nga xamante ne bés bu ñu taxawee wàccee seen bopp wàccee seen tànk ci askan wi askan wi xam ne am na opposition bu am kattan bu am doole bu fi ne pare pour jàmmaarloog njubadi li nga xamante ne président Macky Sall affaire ñu ñu ngi koy bëgg a doxali ci réew mi. Hmm. lan moo tax nag mënu leen boole opposition bi yëpp ndax gis nañu ñenn leader gisuñu seen bopp ci boobule coalition lan moo ko waral. waaw xam nga ab ànd moom dañuy war warmaalante mun doon ànd ndawle waaye nag am na ci ñoo xamante ne parti yu am dëgër la parti yu dëgër la yu wóor am ay ndaw fépp ci réew mi ñooñu am nañ sañ-sañu gise seen biir dajal seen bopp dëgëral seen bopp ndax bu taxaw di am ñoo war a njëkk taxaw ba ci noppi nag parti yi ci des ndax doole yamul te yàlla sax wax dëgg yàlla bind na te yemalewul mais ku dee gis nga ba xam ne wax dëgg yàlla mënoo porter contestation populaire ñëwal nga ànd ci li nga xamante ne moom la njiiti suuxat bu gën a saxal taxawaayu opposition ci réew mi mais defuñ ko pour boddi donte kenn defuñ ko pour simple kenn ci opposition bi defuñ ko pour néewal doole kenn. mais parce que jàpp nañu ne mooy suñu devoir te buñ ko defee président Macky Sall dina yàgg toog. di def ak njubadi ci réew mi. mais tamit est gisuleen que ni bu ngeen seetiwul ñëpp dafay mel ni xaajale mooy am ci opposition bi te xaajale gi ndax yaakaar ngeen ni di ngeen am doole ngir jàmmarloo ak majorité présidentielle bi. xam nga nit ñi rek ñoo yaakamti mais liggéey bi bañ ko dooree yàggul dafa am rek kilifa gu ci am yéene gu rëy bokk ko ak nit ñi bokk ko ak ay ñoñu taalibeem donc tey liggéey bi door na ñu ngi koy dox te incha allah ni ma ko waxee rek. opposition Sénégal war na gën a góorgóorlu wàññi kàddu yi wàññi wax ji te gën a jege askan wi gën a nekk ci yoonu jëf ndax wax dëgg yàlla ñu ngi saytu opposition bi mais ñëpp xam nañu ne suñu taxawaay ak suñu ndëgër laay war nañ ko gën a suuxat pour mën a tontu ci njubadi gi nga xamante ne nguur président Macky Sall ñu ngi koy wéyal di ko doxee ci réew mi. waaw euh, samp coalition ñu ngi koy wax waaye li ci biir tamit mooy fexe ba xam kan mooy doon candidat ci commune yëpp wala sax ci département yi euh, euh, question boobu naka ngeen ko fas yéene saafara. waaw xam nga mbiri moom askan wi ñooy fal ñooy fal seen maire donc ñi nga xamante ñoo amee parti ci gox-goxaan yi ñooy toog waxtaan xool ki nga xamante moo gën a yelloo cër bi moom la askan wi gën a jox bopp jox ko ko boo demee ci département yi du ñàkk ay waxtaan yu am pour consensus am ñu tànn ki nga xamante ne mooy le meilleur profil parce que bëgg am lu neex ma sàmbat ma dem ba tànnoo ki nga xamante ne moo ci gën boo ci demee it doo ci am la la neex donc loolu du doon jafe-jafe arbitrage dina am kilifa yi dinañu gisee fu jafe-jafe am ñu sol seen daal dem ñaw defar pour mbir mi mën a jëm kanam te incha allahu rabbi di ngeen ci am mbégte gu rëy. ville bu ndakaaru euh, taxaw Sénégal ñoom ñoo ko jiite woon ba fii ñu toll ndax yéen mhm. di ngeen nangu euh, ci coalition boobu ñu tànn keneen ku bokkul ci euh, coalition ku bokkul ci taxaw Sénégal. waaw ñëpp xam nañ ne base naturelle lu taxaw Sénégal Dakar la ñëpp xam nañ ne liñ fi def ci wàllu politique si ak yi ñu génn wax dëgg yàlla néew nañu ko fi def donc loolu moom yaakaar naa ne du sax débat. ne candidat wu Dakar incha allahu rabbi ci raawu taxaw Sénégal lay génne neexee yàlla incha allah. Euh, kan la mën a doon ndax ndaxte parfois ci seen biir ñu dégg kenn wax bu yàggul dara weer yi yële passé Barthélémy Diaz waxoon na ci euh, kan ngeen ci fas yéene samp. Barthélémy Diaz am na sañ-sañu taxaw ne dafa bëgg nekk maire de Dakar xam nga ñun moom wax dëgg yàlla dañu nekk parti socialiste wax ne président Khalifa Sall am na sañ-sañu doon candidat bu ñu génnaatee parti socialiste ndax jafe-jafe yu mel du ñu aaye kenn ñu yëkkati loo xam ne dama bëgg a nekk maire de loolu mooy démocratie. Mhm. mais incha allahu rabbi ñun dinañu daje dinañu saytu dinañu waxtaan xool kan mooy kan la ñuy tànn kan mooy gën ci waa Dakar ñu jiital ko. ñëpp ànd ceeg moom jàppale ko pour ndam man a am incha allahu rabbi ay coalition opposition yàgg naa jib ci Sénégal ci at yu wees waaye yenn saay dañu gis ni mujjantal gi tasaaroo moo koy indi ndax parfois guerre de positionnement day am coalition bi di waaj a juddu fan nga yaakaar ni mën na faa yegg. waaw xam nga coalition boobu moom li ko gën a yitteel mooy élection locale yi ñu jëm ak élection législative yi ndax ay scrutin la yoo xam ne benn tour la te raw gàddu la ni ko wolof di waxee. Hmm. donc tey li siy njariñ mooy ñëpp ànd doon benn doon benn say ñu jiitu jàppalante yërëmante xalaat askan wi xam ne loolu mooy suñu cër te it du ñàkk ñoom ay charte doxalin yoo xam ne dina am suñu biir pour mën euh, pour mën a moytu li nga xamante ne mooy tasaaroo gu teel ki mais nag coalition politique coalition intérêt la waaw ndax kenn ku ci nekk di nga bëgg sa nit falu kenn ku ci nekk di nga bëgg sa responsable am cër yu rëy pour gën a mën a dooleel sa parti. Hmm. loolu la politique bi dundee loolu mooy les jeux politiques loolu moom kenn mënu ko bañ. ndax mën naa way ba deux mille vingt quatre ci présidentielle yi. Euh, présidentielle moom. scrutin à deux tour la. maanaam dañuy njëkk def saytu xool ki gën a jekk bi jàppale ko. loolu la élection présidentielle laaj laajul ñëpp ànd booloo doon benn déedéet dafa laaj ñu tas électorat bi deuxième tour am ñu jàppale candidat opposition bi nga xamante ni moo ci gën a baax les positions. Mhm. ñu ñëw ci sa wàll ndax yow euh, bokk nga ci taxaw Sénégal waaye tamit ngay yootu euh, mairie bu Yoff euh, te Yoff xam na ñi kon Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ ci gouvernement bi moo fa teg tànk ndax loolu du dëgër fit dëgg nan nga fas yéene demee jaamaarloo ak moom. ànduma ak politique moom dëgër fit moo ko yor te élection yi ñu weesu muy référendum bi la njëkk a taxaw diriger campagne mhm. ñu am taxawaay bu dëgër bu wóor législative yi ñu weesu it ñu am lu tollu téeméeri waa Yoff yoo jël fanweeri ak ñett yi ànd ak jël tey jàpp nañu ne bu ñu ànd ku jëkk politique bi ci dëkk bi war nañu mën a jëlee Abdoulaye Diouf Sarr ci boppu maire bi ginnaaw sax askan nee nañ amatuñu mbëtt ci moom ndax par parloo la yore maire bi kumba am ndey kumba amul ndey te it la mu waroon taxawee Yoff ci ndawi Yoff am jàmm ndawi yoof amam xëy ndawi yoof mën am ci lu ñuy suturloo loolu yëpp def ci dara donc tey wax dëgg yàlla am nañ sañ-sañu taxaw laaj taxaw gëstu pour mën a teg coalition bi gën a dëgër pour mën ko jël ci boppu maire yoof incha allah te loolu lu yomb lay doon suñu mbalu borom bi. ah mais am na ab plateforme bi nga xamante ne judd na nee ñu kon Abdoulaye ah, Dakar a ko soxla ah, ndax gisoo loolu wala boog tiitalu leen. dafa mel ni ñaari Ndakaaroo fi am de parce que Ndakaaru day a teg tànk. waaw te ñu nit ñu di laxatu ci ginnaaw benn kilifa aada ak cosaan pour war a mën a am lu ñu bëgg xam nga politique dafa laaj ah, courage. Euh, présidentielle bi waas te loolu présidentielle bi wees Dakar euh, kii di majorité moo ko gagné. waaw loolu moom am na mais ñëpp xam nañu ne élection présidentielle yi ñu weesu. Euh, téeméeri waa Dakar yoo jël fanweer ak ñett dong ñoo jot seen carte te ñi ci ëpp ci juróom-ñaar fukki yi des ay ndaw lañu àndul ak nguur gi. donc nguur gi tey ak njubadi gi la laloon foofu. pour mën a nanguwaat Ndakaaru ci loxo yi ñi nga xamante ne ñoo ko mës a téye ci wàllu politique. Mhm. mais politique courage la te ñun déggaguñu Abdoulaye Diouf Sarr ubbi taxaw wax ne dafa bëgg a nekk maire de Dakar ndax ñëpp xam nañ ne ñoom kenn mooy seen kilifa mooy seen directeur de conscience du président Macky te moo wax ne. mooy tànn gox bu nekk kan ak kan moo fay nekk candidat donc loolu yëngaluñu tiitaluñu ñun li ñu waroon def ñu ngi koy def te ñu ngi ciy sax incha allahu rabbi hmm. euh, ci élection yi nag tax na ba ñu sumb révision maanaam ci liste électorale yi yëf yi ci dans le cadre général naka nga ko jàngatee particulièrement tamit foofu ci yoof naka la yëf yi di waaw daanaka jafe-jafe bi am Yoff moo am fépp rek ndax mooy wàllu certificat de résidence mais ñun nag ndaw yi ñu toogal ci commission yi Euh, xam nañ seen bopp xam nañ li leen war ba ak njubadi gu fa ñëw ci carte yi ndax yoof gis nañu ci wàllu certificat de résidence yi yoo xam ne amul signature mais day am cachet directeur de cabinet bu maire bi donc loolu euh, lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñu lu ñu bañ la ba tëdd ci suuf kilifa ya fa nekk nag yore administration territoriale bi ànd ci ak ñun donc moo tax ñun suñuy problème ñu ngi koy jéem a dajeel suñu bopp waaye nag du tere bu lii jeexee incha allah lépp luñ ci gis ci ak njubadi yi dinañ ko siiwal biral ko xam ne président Macky Sall ak ay ñoñam ci njubadi la ñuy dox guddi ak bëccëg pour bañ a follee ko ci bopp réewum Sénégal. affluence bi ndax yéen a ngi nemmeeku ndax ñit ñaa ngi ñëw ci nu mu waree di euh, bindu ji wala di binduwaat. nit ñaa ngi ñëw wéy politique ñu ngi ciy taxaw ndax nguur ak Sénégal dafa tànn bañ a communiquer ci nga xamante ne mooy révision yi donc loolu muy ak bi muy ak njubadi bu ñu lal pour nit ñi bañ a xam ne dañu war a bind bi ndax bind bi ñi mu gën a soxal mooy ndaw ñi donc tey président Macky Sall xam na ndaw yi Sénégal duggaluñ ko ci xolam ndax ñëpp gis nañu kumba am ndey kumba amul ndey gu muy doxale ñëpp gis nañ ak njubadi gi nekk ci moom ak nguuram te loolu incha allahu rabi ndaw yi daanañu takk seen fit am seen fulla ak seen fayda taxaw jàkkaarloo ak ñoom ba lii mën a dañ ci réew mi plateforme opposition bii taxaw Khalifa Sall ne ci président Ousmane Sonko ne ci président euh, Moustapha Sy nekk ci muy pur vraiment ak waa PDS dinañu taxaw jàkkaarloo nguuru président Macky xamal ko ne démocratie dafa am lu mu dafa am lu muy doxee. sëñ bi Seydina Issa Laye Samb ma fàttali kon yow yaay responsable bu ndaw ñi nekk ci taxawu Sénégal ci département bu Ndakaaru nga nekkit candidat ci mairie bu Yoff ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. jërë ngeen jëf ñu leen ñaanal yendu jàmm. jërëjëf.